seq ndax tribunal moo koy leeral euh, euh, loola da koy topp ba 2024 lu ci mënti am am déet waaw man li ma xalaat ci loolu c'est très simple xam nga Sénégal malheureusement dans ce pays on est spécialiste en tout lu xew rek ku ne wan ci xereñ goo xam ni et cetera euh, te dafa am loo xam ne aussi surtout li xew ak accusation bi nga xam ne moom la ñu toppee Ousmane Sonko ay la yéwén nag ku dul Ousmane Sonko ak ndaw soosu ak yàlla mi ñu bind xama ci dara dañoo xamante dëgg ko keneen ku ci wax dara da ngaa wax li la neex rek waaw da ngaa wax li nga xalaat rek mais nag aaya ji alxuraan ne illa bi ma alim naa nit il faut aussi ngay seede loo xam tu comprends nit ñi war nañu am maandu teeg aussi toog nag euh, déglu xool ki nga xam ni mooy àtte comme yëf yi mi ngi ci loxoom mu jéem a xool ba xam nu mu ciy nu mu ciy waaw man daal man loolu laa gis quoi parce que aussi wax ji ak interprétation bi aussi dafa bari te ñi ciy wax ñëpp it nag xamuñu ci dara moom man jàpp naa ne ku yàlla ak Adji Sarr ak Ousmane Sonko noo xamoo ci dara wala boog loo ci xam rek dañ la ko wax hmm. il faut il la vérité te ni ñu la ko waxee est-ce que li ñu la wax moo conforme ak li am loolu aussi beneen affaire la nit ñi faaw dossier boobu ñu xaw cee doxal tuuti maandute sama hmm. gis-gis ñu ngi lay gërëm Cheikh Yérim Seck euh, di gërëm ñi ñu topp ci euh, daanaka euh, léegi mu yegg waxtu weesu na ko sëlëf ñi topp ci toog seen télé seen kër guddi na